boo xam ne bi décision UEMOA ñoo ko indi en 2009 dañu jëloon ay dispositions bari teg ko ne il faut ñu transformer ko en loi ñun ñu commencé ko transférer indi la loi de du du 8 juillet 2011 portant la loi foofu la ñu commencé les problèmes de transparence ñoom ñu ñëw seen premier moment ñu def ko par Mimi Touré moo nekk ministre de la justice ñu indi code de transparence mmh. euh, déclaration de patrimoine mu ngi woon ci biir constitution bi du dëgg mais xam nga lan moo gën a grave lu tax ñu def mais ak ni ñu ko élargir élargir ko fan mais ba ci képp koo xam ne yor nga plus d'un milliard ci sa budget waaw déggul ma la wax xanaa du dégg dama ne déclaration patrimoine président de la république constitution moo ko réglé code de transparence bi jógee ci décision IMEA moo réglé problème mu code de transparence bi wax ne diw ak diw ak diw ñëpp dañu war a def déclaration patrimoine mais OFNAC toog fi ay weer ñu ne gars yi defaguñu seen déclaration de patrimoine dégguloo ko. ba tey sax am na ñu ko defaguñu. waaw si tax mu wax lu tax mu am. ba nga bëgg ma wax loolu tax mu am lu tax mu am moom laa lay expliquer bi ñu ko defee ba pare ñu toog toog toog toog toog ba mu am coow lu bari te li fi jëleem na fi na fi ngoom kay ci la bokk parce que toog na at bu mu liggéeyul at toog na ko liggéeyul xamul tax parce que créé nañ ko ba pare bëgguñu ko àggali xam nga doxin doxin jël benn affaire di nar ko dox ndànk-ndànk ba mu àgg ba fa nga jëm ak jël benn affaire ni lii laay dafa pare wéer ko du benn engagement yi mooy fixer des objectifs ba pare def le maximum pour atteindre ko mais fixer objectif ba pare nelawal ko ne lii yëkkati woon naa ko mais naa ko teg fële du sotti moo tax lu nekk lañ def pour yow yéene bi nekku fi woon. waaw mais mën yéene bi nekku fi woon kaay ma wax lu tax yéene bi nekku fa. Macky Sall faluñu ko ci mars 2019 bi. Mhm. lu constitution bi wax article 37. bu faloo dafa war def déclaration bokk na ci li mu wax. le président nouvellement élu nouvellement élu. waaw nouvellement élu mhm. bu con bu conseil constitutionnel déclaré ne il est élu rek bu boobaa dafay dafay def déclaration de patrimoine est-ce que def na ko ba léegi waaw moom mu ñëw def déclaration ne huit milliards la te huit milliards bi ñu génnee déclaration boobu ñu compté muy huit milliards dañ ko wàññi conseil constitutionnel ñoom dañ ko jëli ne ko ne ñu wàññi ko léegi xam nga ñaata la ñoom lu ñuy waxante laaj leen ko ñoom ñoom dañuy rendre compte ne que le président est immensément riche moo tax ñenn ci ñoom ne du ñuy def déclaration gisoo kenn benn ministre bu ñëw cour des comptes ñëw mu ne gars yi ci biti. Moustapha Diop ci biti. yi ci biti. Moustapha Diop waay. boo leen doo leen ma contrôler am ngeen keneen koo leen contrôler allez contrôler le président de la république wala diw wala diw wala diw. quand le président refuse de se soumettre à la loi les ministres et les députés et les concernés ne se soumettront pas à la loi. Mm-hmm. donc bu njëkk bi da nga jàpp ni président ci boppam moo ko def. waaw mais yow yow sax récité nga leçon bi Pape tiré ci conséquence bi Pape journaliste bàyyi leen loolu mhm. yow nee nga le président dafa war a def déclaration ko tiré dafa fekk nekkuloo fi waaw oh, d'accord mais nga nga tiréwaat ko sama kanam comme ni mu nga defoon sànq rek Pape tirel conséquence yi le président refuse de le faire commissaire bi bu nekkee ci biir di jël yamba bi di ko jaay ak di ko tux mhm. gardien gardien bi mu jëkk jaay dafa am droit tëbb ci dara denc lu leer laa lay wax dafay wàllee donc la bonne gouvernance la cour des comptes nangam nangam se parti dégg ko li la li li ñu wax ci assemblée li Moustapha Cissé taxaw ñëpp di ko dégg da nga dégg ko ko weddi mhm. mu ngi nii pap mhm. voilà les faits kon jàpp nga ni rapport yi yow du sa problème mais euh, kiy fexe ba liñ yi kiy fexe ba rapport bi liñ ci def dina xeex moom ba loolu dootul ñëw kooku la déggoo ñu naan déggoo kenn ne la kenn ci rapport yi ne dañuy ne la ñuy tere agence yi dépense ministère yi ñu supporté xam nga lu Aline Sarr wax madame euh, ki yoroon ki mu remplacé au tourisme mm-hmm. ne dafa recruter soixante quinze personnes yoo xam ne ça coûte soixante million de francs par mois te ensuite ñu ngi koy jëlee ci ci ci ci ci budget investissement bi ñoo ko wax Alioune Sarr moo ko wax ministre bi fi jógee ministre bi fi jógee itam weddi na ko. mais nañ ko réglé président daf leen di woo bàyyi leen. Mhm. ne leen abandonné leen seen yëf dem leen ma indi ñeneen. Mhm. kan nga fi dégg kuñ fi jàpp ci ñoom ñun bi ñu soogee teg dañuy jàpp ay nit dafa am ay nit yóbbu ay tribunal jàpp nañu ay militant nit yóbbu nañu yóbbu nañu premier ministre te makki Sall mii la. moo jiite ñu ngi ci woon man ak moom liggéey nañ ci ensemble ci résolution d'accusation bi ca inspection générale d'État ba rapport bi génnee ba ñu jox ko ko am na nu mu defoon pourquoi mënu ko def le premier ministre am. jàng na bi. amatu ko amatul premier ministre mu defal ko secrétaire général de la présidence de la dama ne. jàng na saar bi def ko bañ a tari. ku nekkoon premier bi Idriss Seck dem résolution d'accusation. xanaa moom ku nekkoon président de groupe du man. Mhm. mu noonu. léegi dafa immunité parlementaire yi ñu fa nekk ñu bokk bokk ci njëkkati leen loo gis mosoo gis ku lever immunité parlementaire yi ci sañ-sañ ci droit ci yoon gisuloo ko def naa ko Alkali Cissé bërk démb CEDEAO Moustapha mhm. Cissé Lo dañ ko jox lever immunité parlementaire député mu bañ ko ne dama koy protéger parce que loi bee ko protéger pourtant si fii def lu te laaj fii mhm. waxu la ne dafa am audit interne vérificateur CEDEAO moo ñëw vérifier ko président président président Macky Sall moo ne moom bu ñëwee assemblée nationale institution yi dafay yónnee inspection générale d' état du ko yónnee du moom. Mm-hmm. mais def ko jàng na saar bi daf ko du tari parce que il est impliqué dafa impliqué du point de vue politique saa yooyu wax loolu dangay ngay jàpp ne président APR mooy wax. ban ban implication nga bëgg a wax mais Pape. man maa am implication laa bëgg wax da nga du ko def parce que il est impliqué. waaw Pape waaw Pape xam nga man maa moom suma njaboot. waaw li may tere si kër gi ak si village bi te chef village bi sama njaboot rek koy def mooy ci man la Pape ku mën a fal mën a folli ku mën a joxe ndigal ne defal ma nangam ku ko deful nga mën a dal ci kawam ana Khalifa Sall dépense diverse lañ ko jàppee. dépenses diverses dernier article cabinet du maire maa ngi wax li may wax 533 maires yi nekk Sénégal yëpp bu buñ leen xoolee foofu jàpp leen bés bu nekk ñu may xaalis ñu dem ngénte dem dëj génne xaalis joxe ci foofu lay jóge te amul kayit lu ñu weddi na ci kenn weddi wala mu porter ma plainte donc façon doxalee il faut ñu changer ko mais il faut am kenn ku am fit pour def ko. mais moom dafa ñëw gën ko aggravé daf ko yokk daf ko aggravé daf ko yokk ñu ngi am ay problème Sénélec am problème nag dégg nga si li ñuy wax Sénélec pièce comptable yi wane na ni génn nañ fa à peu près des centaines de millions ñu ne dañ ko jox ay ay organisation de tarixa waaw ba pare nag yow nga bañ meer bi dem gàmm pas problème yaa ngi nii de mhm. voilà les problèmes du pays donc Macky bu bëggee bonne gouvernance li nekk ci constitution te ñu def ko am na ay moyen pour def ko. kon yow sa problème ni du rapport yi. non du tout rapport yi pare nañ ci. d'accord mooy diw def na nangam. Pape jël nga karawaatu jàmbur yaa ko fi jël léegi fii lañ ko teg caméra bi am na nekkoon fii def nañ dem na ñu ne Papa nga ñëw fi gis nañ ko mu gàddu ko mais xam nga lan mooy lan mooy directeur lu muy def Pape andi ko baa mu jël si police nga joxe ko foofu la problème bi nekk. jël ay ministres jox leen 7000 tonnes gerte xaw ay semences arrêté. d' accord jërëjëf euh, ñu ñëw ci yeneen question yoo xam ne dafa nekk ay question sociale euh, gis nga li xew ci